waaw waaw wala rek de dem na nii sax defeere na ma ne waa fii jekki na sax la dëgg defeere na ko dem na xañ foofu ci biir ci biir maire bi la waaw ah. defeere wala mandat dépôt dépôt ah, dépôt waaw defeere mooy ndeysaan paa boobu mi ngi doon di jooy ndeysaan mi ngi doon ñuy yóbbu di kilifa si Lac de gis ngeen ko noonu gars yi ñu ngi jooy ndeysaan oh Lac de Guiers ñu mu àndal ngay jooy ndeysaan gis ngeen ko noonu dafa mel ni dañ koy yóbbu yóbbu nañ ko famille baa ngi noonu di génn ndeysaan ñoom Malick Thiandoum ñëpp a ngi fi ndeysaan yaay ma ngi noonu di jooy moom it dafa mel ni Malick Thiandoum ndeysaan ndeysaan noonu gaa yaa ngi noonu di ndeysaan gaa yaa ngi noonu di jooy wax dëgg yàlla defeere nañ ko a dëgg yàlla defeere nañ ko gis ngeen ko noonu gaa yaa ngi nii di jooy gis ngeen gaa yaa ngi nii di jooy

ba yegg ci moom fu hmm. sori la ba mënatu la continuer. maa ngi kii rek maa ngi jaaree maramba ñu topp ñu koy jigéen ñi ko fi xalaali lu biin ci erreur moom day topp na mbëggeelam ba mu ngi mu ngi noonu. si te léegi yéen ñu ngi def ji bi lañu jël leen ko nekk turam ma weccoon am nga mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di amaan mbégte contentement baax di jàkkaarloowaatee génn ku ne xam ne ni tey ñu ngi fii ci tribunal procès bi nga xamante ni mooy Lac de Guiers waroon fee taxaw tey waaye ñu gis fi koo xamante ni mooy Alaaji Sa Touba mu ñëw teew fi euh, teewee fi teewaayu mbokk teewaayu xarit àndandoo ak dëkkandoo duñ def rek lu dul bàyyi ko mu nuyoo ñu waxtaan ak moom nuyu nañ la si yàlla alaaji waaw ansibilahi mina seytaan rajim bisimilahi sant yàlla ci yonent bi ñuy gërëm ñi nga xam fi teew ñëpp ñaanal yàlla tànk yi nga xam ne moom lañ fi ñëw defal ay ngënal ci barke Seydina Muhammad leen ci ay nattu yu mel nii barke Cheikh Khadim nga dégg ni euh, ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers 2 yoon teg na ko loxo nga bàyyi sa yitte yëpp fii tey ci tribunal bi diggante nga xamante ne mooy Lac de Guiers 2. waaw dama fay ñëw en tant que jullit ak mbokkam. Mm-hmm. ñëw fii en tant que tam nit koo xamante ni tey teewal naa fi mboolem ku nekk ci ginnaaw Moodu. Mm-hmm. parce que moom ci jëm boppam sax moo amoon yéene teewal fi boppam moom moo dëgg la mais dafa jëndoon tey ci fajar mm-hmm. vraiment yaakaar naa sax peut-être mën na peut-être mën na ne ci yoon bi di ñëw mm-hmm. mais moo fi waroon teew dëgg la ñu déggante ci démb ci guddi gi mm-hmm. vraiment ne moom boo ma gën a oyof rek mm-hmm. parce que damay voyagé nii ci fajar gi mais damay tourné waat mm-hmm. nga mm-hmm. teewal ma teew fi ngir jëmm teew fi ngir suñu jëmm ak jëmmi Papa Si Njaga nag ñoom Serigne Ndiaye it muy nit ku baax waaye jullit la te jullit rek la yàlla di teg nattu dëgg la nit ku baax faaw yàlla di la teg ay nattu lii jiitu na juddam ba mu amee ñeent fukki guddi ci biiru ndeyam la yàlla sàkkoon fi mu war a jaar ak li mu war a dund dëgg la te kaso itam bëri na lu muy fang ndax amaana tey mënoon na dund lu gën a métti la de guerre ku ne ko woon nga tëdd kaso ñaari at uh-huh. sa yaay dundaat mu jël loolu te lim ñàkk moo gën a foor kaso dëgg la ndax waajur ku ne xam ne ni mu mel ci moom uh-huh. te ñàkk na ko te da koo muñ dëgg la te ku xam la de xam ne jullit la uh-huh. muñkat la itam natt la rek bu ko yàlla tudd ndax kenn yaakaaru ko woon ci yéen ñii ñëpp ne la de yu kaa yi mel ni dana ko cumb ba lii di ko ci fekk mhm. mais lu ko yàlla tuddee la lu yàlla rëddun ci jëm bi la bu ko leeroon na buy dundee lii bu doon milliard mhm. su ci duggee lii fekk ko ci kon du dugg mais yàlla moo ko ci xiirtal mhm. ba mu dugg ci ba lii fekk ko ci amaana natt yi fii la waroon a jaaree ba mu dund ko dañ koy ñaanal yàlla yàlla mi nga xam ne dara taw ko moo ko teg yàlla na ko teggal ci lu gën a gaaw toog dégg information bi ñu ne Lac de Guiers 2 yoon teg na ko loxo euh, ba nga déggee li nga xamante ne mooy nouvelle bi nan la def ci yow waa daf ma marqué trop parce que li ma njëkk a laajte lan mooy problème bi lan la war a def ba yoon teg ko loxo après bi ma demee ba xam li waral loolu it xam ne it nattu la rek bu wàcc ci kawam. mënu mhm. ko woon daw. Mhm. li ci ëpp solo daal mooy ñaanal ko yàlla. Mhm. xam nañ ne jullit la. jàmbaar la. gaynde la te bañkat la te ku ragal gàcce la te ku xam la lat ba ci sport bi muy dund ngeen xam ne dafa ragal gàcce. dëgg la. ndax daanoo ku ko rey la yemal mhm. kon loolu te loolu ku ragal gàccaa koy def lu mu métti métti métti day da koy gérer mhm. kon na ko yàlla may xolu muñ amiin na ko yàlla may xolu muñ yàlla euh, ko jàmm rek allah dugg nga ci biir tribunal bi génn tey euh, yan information la lan lan mën a am li nga xamante ni moo xew ci biir ak fan la mbir yi toll waaw nit ku dal la ba pare ku ku ko ànd ak conscience am la mhm. mi ngi waxtaan ak nit ñi tey nangu na ne natt bu ko yàlla teg la gëm na loolu mm-hmm. beneen bi ci toppit nee na moom xamutoon ne nii la ko nit ñi bëggee mm-hmm. ak yitte yi nga xam ne ak ñi nga xam ne doomu aadama yi nga xam ne ñoom la gis ak ñi mu dégg ñëpp ne ñëw nañ fi mm-hmm. moom daf ko marqué ko macha allah bala ngaa nekk xam say nit dëgg rek nga nekk ci ay jafe-jafe tey la dëggeer xam na ay nitam ndax jafe-jafe yi mu nekk tey kon ñi ngi ñaan autorité yi muy géejuwaay mhm. muy monde lamb mhm. muy waa CNG mhm. muy leader yi mbër yu mag yeeg yëpp nañ gën a jug takkaayu taxawu ko dimbale ko te yàlla tax mais ñu jot ay information la Lac de Guiers ci ci tribunal bi euh, defeere nañ ko est-ce que mën nga ci indil ay leeral yow mi nekkoon ci biir waaw loolu moom xam nga man mënuma ci sori uh-huh. peut-être am na ñu ci war a wax man li uh-huh. nga xam ne moom moom laa ci war a wax mooy li nga xam ne moom fi indi uh-huh. mooy ñëw soutenir ko ñaanal ko yàlla uh-huh. ak dox en tant que jullit ak mbokkam ak muudu mi nga xamante tey waroon na fee teew uh-huh. te jënn ñu uh-huh. ñëw teewal ko fi loolu moo tax ñu kii mais euh, ci côté defeere beeg yooyu moom wax dëgg yàlla du suñu du suñu cër daal macha am na suñu cër kontaan nañ jërëjëf jërëjëf ñoo gën a kontaan jërëjëf macha allah wala am ko si ndeysaan paa boobu mi ngi doon di jooy ndeysaan mi ngi doon ñuy yóbbu di kilifa si la de guerre 2 gis ngeen ko noonu gars yi ñu ngi jooy ndeysaan oh. Lac de ñu mu àndal a ngay jooy ndeysaan gis ngeen ko noonu dafa mel ni dañ koy yóbbu yóbbu nañ ko famille baa ngi noonu di génn ndeysaan ñoom Malick Thiandoum ñëpp a ngi fi ndeysaan yaayam a ngi noonu di jooy moom it dafa mel ni Malick Thiandoum ndeysaan ndeysaan noonu gaa yaa ngi noonu di ndeysaan gaa yaa ngi noonu di jooy wax dëgg yàlla defeere nañ ko wax dëgg yàlla defeere nañ ko gis ngeen ko noonu gaa yaa ngi di jooy gis ngeen gaa yaa ngi nii di jooy